بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokki jullit yi ba tey noo ngi ànd ak yéen ci téere borom bi tabaraka wa taala tollu ba tey ci suura al an'am ci kàttanu borom bi ñuy jël tey ñaari aaya aaya 54 55 ñaari aaya yi nekk sunu kanam sunu borom mu ngi nu ci jàngal ñetti mbir ba ci ñaar yooyu bi ci njëkk mooy wujubu rifq wa talattufi bil mustaftinin wa adami shiddati wal ghilzati alayhim sunu boroom subhanahu wa taala mu ngi jàngal ci ñaari aaya yi nekk sunu kanam waral gi mu waral nit ñi waral lewetante ci seen biir wujubu rifq jullit dafa war a lewet jullit dafa war a nooy daa war a bëri yërmande daa war a lewet yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na lewet du nekk ci dara lu dul mu rafetal ko tar ak ñàng du nekk ci dara lu dul mu daal di koy yàq sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi ko yàlla di tagg ci alquran da ko ne boo ñàngoon walaw kunta fazzan ghalidha alqalb lan faddu min hawlik soo ñàngoon nekk ku tar di sonewaate di mbëkke kon gaa yi duñ la wër tey kon kenn du la wër kon war gi yàlla waral ci ñun ñu war a lewet ar rifq waaye watalattuf ñu am ñeewant ci ñan bil mustaftinin ñi nga xam ne fitna dafa dal seen kaw ay defkatu bàkkaar lañ dañuy moy yàlla wala nattu dafa dal seen kaw ñu lewet ci ñoom suñuy wax ak ñoom ñu lewet ci ñoom bu leen di waar ñu waar leen waar bu rafet suñuy waxtaan ak ñoom ñu indil leen yaakaar yërmande yàlla lu bàkkaar yi bari bari bari bari bari lu ñu sori sori sori sori sori ñu fexe ba ñu dellusiwaat sunu yonent alayhi salaatu wasalaam gis na sahaaba yi di xas benn waay ñii di ko dóori dàll ñii di ko dóor seeni kaala ñii di ko dóor ak seeni loxo yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam laa tuiinu shaytaan ala axiikum waaye yéen sawaay seen mbokk mi bu leen dimbali seytaane ci kawam moom kay bu mu def ay tojaange def ay njombe ba pare yéen tamit ngeen koy ngeen di dimbali seytaane ci kawam yéen koy fexe leen ngeen nangu ko ci seytaane tey jii nag ci guddi yi ñu toll daawa bi loolu la manqué noo ngeeg ay mbokk yoo xam ne yàkkamtiwuñ lu dul gis nga tarxiis ba ñu siiwal ko ci àdduna bi ba ñu wane ne yow nii nga mel da nga doon sóob gëmoo dara patatata turututuru génne la ci mbokk yi xam naa tey ay junni junni xale yu góor wala yu jigéen yu génn ci liggéey bi di liggéey lislaam dara génne lu wuleen ci lu dul ña dul wax ña doon wax ak ñoom ñoo leen woon tar tar ñoo leen won tàngaay ñoo leen won ñoo leen won ñu daal di leen bàyyeeg mbir mi diina ji bu leen yaakaar ne kuy def bàkkaar bokkoo ci bu leen yaakaar ne ñi dul tarxiis diina ji ku ci nekk doo tarxiis déedéet wa laqad ahidnaa ila adama min qabl fa nasiya te moom yonent la ñaata sahaaba ñaata ci ay nit ñaata ci ay yonent ñaata ñaata yonent bi sax sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne bu ngeen dul woon tooñ yàlla yàlla jële leen fi indi ñu koy tooñ di jéggalu mu leen di jéggal kon foog ñu am ak lewet ar rifq wa talattuf bil mustaftinin boo addajeeg mbokk jullit bu yàlla natt mu am fitna da ngay nekk ci wetam ci jàppale ko ci encouragé ko bañ ko découragé mbokk man def naa bàkkaar rek nga ne ko yow de pare nga bu yow bu yow sa waay nga nga nekki rappeur déedéet mbokk da ngay tuub jullit noonu la du dara seytaane moo la bëgg a daaneel da ngay bañ hakaza waaye génne waa ji ci islam ba mu set pecc ba waa ji dafa ne yàlla dootu ko baal waa ji dem defi leneen benn xale bu jigéen mos na ma wax ne dama suñu mbindaan dafa dafa meesu ñeenti paquet ma ne ko yow de jaratul ngay julli comme da ngaa meesu xam nga ne boo jullee yàlla du ko nangu ah xale bu jigéen bi jàpp liñ ko wax julli jot mu toog tisbaar jot mu toog takkusaan jot mu toog ki ko waaroon ne ko waaw yow doo julli mu ne ko ah comme yàlla du ko jël lu ma koy doyee du ma kon ke du ma ko julli yow yaa ne ma mu jullee yàlla du ko jël mu ne ko déet man dama la doon mu ne ko yaa ma ko wax maanaam waar bi mu ko bëggoon waar moo moo jàdd daf ko woon tàngaay te am na ci nit ñi ñoo xam ne boo leen wanee tàngaay rek ñu pare ci yow pare ci diini ci kon foog ñu xam nit ñi communiquer ak nit ñi waaye mbokk yi wa adamu sidda ñu bañ a tar yàlla yónni wuñu benn waaye dafa fekk borom xam-xam bu tudd Muhammad Ghazali bu ndaw mu ne ko yaa cheikh ma hukmu taariku sala lan mooy atte ku bàyyi julli mu ne an na axusa bi yadihi ilal masjid oui hakaza ma hukmu taariku sala mu ne an na axusa bi yadihi ilal masjid kooku lan la pare woon pour ñu wax ko kooku mu taariku sala fi naar fii jahannam fii nangam loolu la bëggoon ñu wax ko waaye ndeysaan bal cheikh bi comme daa yi la ku xam adduna la mu ne hukmuhu an na axusa bi yadihi ilal masjid atte ku bàyyi julli naa mu ne mooy ñu jàpp ci loxo bi yóbbu ko ca jàkka ja ne ko sawaay mu ne mu ne ko nan julli loolu parce que nit ñi il faut ñu changer communication yi ñuy communiquer ak nit ñi ñu xam ne sunu borom subhanahu wa taala ku bëri yërmande la benn waay ñëw na fekk benn amir mu ñëw rek dal ci kawam ne ko yow safara nga jëm jaw dal ci kaw amir bi bu baax amir bi ne ko waa yow yow maag firaaw na ku gën a bon mu ne ko ah yow kay firaaw naa la gën a bon nag mu ne ko yow yaa ngi Moussa ku gën a baax mu ne Moussa moom a gën a baax mu ne ko yàlla bi mu yónni Moussa ci firaaw na lan la ko wax faquulaa lahu qawlan layyinan laallahu yatazakkaaw yaxsha wax jàngoog xoolal bu kàccoor bu toll ne firaaw na waxoo xam ne dem na ba ne ana rabbukumul aala yàlla di yónni moom ci yonent ne yonent ba boo demee nag da nga xam ne kilifa ngay waxal na nga ko wax wax ju nooy fa qulaa lahu qawlan layyinan wax ko wax ju nooy allahu akbar sunu borom moo bëri yërmande normalement lan la waroon wax Moussa soo demee bu ko yërëm ndax ki kàccoor la saay-saay la nangam ak nangam waaye da ko xamal ne soo demee na nga ko wax wax ju nooy mu nga kon bu fekkee ne ay yéeféer la ñuy wax wax ju nooy alxuraan moo nañu waqulu linnaasi xusnan wax leen nit ñi lu rafet même bu fekkee ahlul kitaab la ñi nga xam ne ay yahud lañ ak ay nasaraan yàlla mun nañu wala tujaadilu ahlal kitaab illa billati hiya ahsan même yahud yi ak nasaraan yi su ngeen di wax ak ñoom na ngeen discuter ak ñoom discussion bu rafet te ahlul kitaab lañ kon léegi jullit yu réer kon noo war a def ak ñoom ah. gën a nooy gën a nooy fexe ba jàpp ci seen loxo fexe bu fekkee waa ji daawul julli fajar nga fexe ba jàpp ci loxo bi muy julli ci fajar fexe bu fekkee waa ji dana nga fexe ba nga fexe ndànk-ndànk. aussi bañ a yàkkamti xam ne mbir yi ci loxo yàlla la nekk nekk suñu loxo bañ a yàkkamti ci daawa bi tey laa lay daawa tey ngay dund sunna tey ngay nekk na doo mënul nekk ndànk-ndànk. waa ji daa wuloon julli fexeel mu julli daawul dem jàkk nga dem ndànk mu ñëw ah lu gën a garaaw mooy ñu bañ a xam fu ñuy tàmbalee daawa dafa am al awlawiyaat dafa am fu ñuy tàmbalee sooy daawa xamoo fi ngay tàmbalee ñi ngay daawa duñ la wuyu si te loolu mooy suñu problème nga fekk ku ñuy julli nga naan ko ki waa ji di julli nga naan ko booy julli da ngaa war a xabdu xabdu mooy sunna te kii du julli kon fan lañ war a tàmbalee kooku ah ah nga fexe ba mu am tawxiid ba tawxiid bi pare ba mu xam ne dafa war a julli julli farata la yàlla ko santaane nga doog ko wax melokaanu julli nan la ñuy jullee léegi nag fan yee maa ngi waxtaan ak yow ci wa- gis naa la yaa ngi góorgóorlu macha allah vraiment jàmbaar nga léegi nag ma wax la tey nag naka la ñuy jullee naka la yonent bi doon jullee hakaza kon ñu bañ a tar wal xilsa alayhim bañ a tàng trop ci ñoom bañ a tàng mu ngoog ndeke kon woote dafa am yoon dafa am yoon wu ñu war a jaar dafa war a yoon wu ñu war a communiquer ak nit ñi fu ñu leen war a jaar woo leen suñ jaaree ci yoon yooyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaaroon sunu daawa dafay réussir lu bare bare bare gis nga yonent moom ñu bari da ngay jàng ci ay hadis ñu ne yonent bi laaj nañ ko mbiri lu gën a baax mu ne lii kii ñëw laaj ko lu gën a baax mu ne lii kii laaj ko lu gën a baax mu ne lii kii laaj ko lu gën a baax mu ne lii ba nga yaakaar ne kon yi gën a baax lan moo waral loolu lu waral loolu mooy kenn ku nekk day xool li nga manqué mu ne la yow lii moo gën ci yow nga daal di góorgóorlu ci loolu kenn ku nekk li nga manqué li nga dul def nga laaj ko loolu lu ci gën mu ne la lii su ko defee yow nga góorgóorlu ci loolu loolu mooy wax bi moo tax chaque jour da ngay gis nit ñëw laaj ci yonent bi ayul islaami xayr mu ne ko tut imu taam wa taqra'u salaam ala man arafta wa man lam taarif keneen ñëw laaj ko mu ne ko nga wattu julli yi ah keneen laaj ko mu ne ko laa taxdab aw sini ya rasulallah dénk ma mu ne ko laa taxdab fa karrara miraaran qaala laa taxdab bul mer waa ji ne waa yonent loolu rek ma jóge sama kër ay kilomètre ñëw bu fii ne la dénk ma amoo loo may wax lu dul bul mer waxaatal leneen mu ne ko laa taxdab mu ne ko waxaat ma leneen mu ne ko laa taxdab ba waa ji insisté lan la ko wax laysa sadidu bi sura innama sadidu man yamliku nafsahu inda al ghadab kon loolu mooy wax ci mbokk yi ñaareel bi mooy ittibaa'ul hawa ittibaa'u ahlul ahwaa'u ahlil ahwaa wal baatil yu dillu wa yuhlik topp ñi nga xam ne seeni bànneex lañ topp caaxaan lañ topp mbokk yi loolu day sànq nit te da koy alag gis nga Sénégal tey bokk na ci li ko alag mooy nga topp ñoo xam ne seen bànneex lañ topp billaahi xoolal diine ji tey ah démb laay seetaan benn épisode ci télévision bi eggaliwu ma ko ndax dama yàkkamte woon dama xool ni gis rek daal ne ah lii du ma ko xool daal koy fay ma dem sama soxna daal koy taal sama ginnaaw ma ñëw mu ne ma yow gis nga démb li nga taaloon fii mu ne ma ne ko waaw mu ne ma gis nga kilifa gi bi mu génnee ak ay jabaram dañoo fecc ba mbir mi tas ma ne ko loolu ma doxoon man la bu ma seetaan xam nga Sénégal day lu ci doy waar mooy kilifa diine buy woote ci mpecc di woote ci yaramu neen woote woo ci kaay leen ñu julli kaay leen ñu sellal kaay leen ñu jàng alquran kaay leen ñu jaamu yàlla kaay leen kaay leen kaay leen kaay leen yow lan ngay woote ah kaay leen ñu fecc léegi nag ñiy wuyu si ci mbooloo yooyu lan moo leen di dal mooy dañuy alku mbooloo yoo xam ne tey kenn mënu koo lim ci ay caaxaan kese kese kese foo ci dugg fecc ak way di tëb di fecc jigéen ñi def yaramu neen sol yëre yi yaraax seen yaram yi nekk ci biti góor ñi di fecc di tëb ba kañ ba kañ ana ban kilifa diine ci kilifa diine yu mag yi ngeen dégg ne dafa woote woon am pecc dafa woote woon ay tëgg kan la ci ñoom mais xoolal tey yëf yi daal nag dañ ne ñëw leen rek ñëw leen wuyu loo def baax na naan leen tux leen njaaloo leen fen leen priant leen ñëw bokk leen rek nekkal ci mbooloo mi rek ëllëg àjjana amul problème di nga dugg maa ngi dégg am na benn waaye bu ma yónnee benn son benn waaye naan su bokkul ma internet bi wooy fuñ jëm wooy alku nañ diina ji dugal nañ ci lépp waa ji daal dafa ba non dafa saalit ma ne ko lii la de diina ji moom lépp a gi ci tey chaque jour yaa ngi gis waaw ku jàng li dem àjjana ku ma xool dem àjjana ku ma nuyu dugg àjjana rek ngay dégg lu ma tax nit ñi dootuñ jaamu yàlla léegi nag mbooloo yu mel noonu bu yàlla nattoo nit mu bokk ca alku na safara la jëm direct ndax seen bànneex lañ topp topp bànneex lu muy def yu dil dafay réeral soo réeree ba dee ci réer foo jëm yuxlik da ngay alku yal nañu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yal nañu yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko ñetteel mooy على المسلم الداعي إلى ربه أن يكون على علم كاف بالله تعالى وبتوحيده ووعده ووعيده وأحكام شرعه كي واتشيون يلا نك أبو واتكات woo nit ñi di leen yóbbu ci boroomam gis nga alal muslim addaaiya ila rabbihi wa man ahsanu qawlan mimman daa ila allah kii woo nit ñi warul wax nit ñi ñëw leen ci man ñëw leen ñu dem ci yàlla inni muhajirun ila rabbi kaay leen ñu ànd man ak yéen ñu jëm ci yàlla balqis ba muy tuub ca suleymaan di jébbalu lu mu wax wa aslamtu maa suleymaan lillahi rabbil alamin nga maa ngi jébbulu ànd ak Souleymane maa la wax maanaam jébbulu ci ni dafa aram moo tax wax ko maa ngi jébbulu ci yow dafa ne maa ngi ànd ak Souleymane di jébbulu jëm ci borom bi maa la wax de ah wa aslamtu maa kon kii woo nit ñi di leen di yóbbu ci yàlla tabaraka wa taala na xam ne ci yàlla la jëmee nit ñi waaye waan yakuna ala ilmin na nekk ak xam-xam moo tax gis nga comme dañuy woote te amuñu xam-xam moo tax ay penalty rek la ñuy def dañuy yaakaar na ñu ngi woote fekk dañuy yàq benn waaye mos na foot fekk benn photo kilifa diine ci néegu yaayam mu luqati bëti mu jël puso rek luqati bëti kilifa diine bi bàyyi fa photo bi yaay ji na ko li mu ne lii daa araam yaay ji di yuuxu ci diggi kër gi ba nit ñi ñëw xam nga loolu musiba la tey jii bu nit ñi ñëwoon fees kër gi ñu wax lim def rek rajo yi ñëw fa nangam ak nangam rek guerre civile daf fi am te moom jàpp na ne def na lu rëy rëy rëy parce que dina faxa photo bi ba kenn dootu ko wékkaat fii beneen bi mooy am na yenn yoon yoo xam ne yooyu jaar bu dafa ne da ngay liggéey fekk da ngay yàq ay nit dañoo dem Égypte fekk fa benn baar ñu daal di attentat baar bi ñu ne fii kenn dootu fi naan sàngara ñu def ci ay bomb hôtel bi naaw ndeke borom hôtel bi dafa am assurance borom baar bi daa am assurance bi enquête ñëwee ñu enquête ba xam ne dañ ko tooñ nangam ak nangam assurance daal di koy fay mu daal di koy def trois étoiles daal di ne aradu xiraabaha wa arada allah an yaamuraha mu ne gars yi dañoo bëggoon mu jóge fi yàlla dafa bëgg baar bi nekk fi mu naysal ko ba mu nays moo tax am na yoon yoo xam ne kenn du ko dindee lu bon dindi lu bon dafa am ay étape ak nuñ koy dindee moo tax ñiy dindi wala ñiy wax foog ñu am xam-xam jàng ngeen hadis bi ki reyoon ñaata nit téeméer bu manqué benn mu dem ci benn faqih mu ne ko damaa rey téeméer nit bu manqué benn ndax bu ma tubee yàlla mi na baal mu ne déedéet mu rey ko nekk ñaata waaye deuxième fois bi muy dem ci lan la dem ah ci aalim gis nga ah ci borom xam-xam la dem bee nag ci faqiih la demoon nit ñi dinañ jàng yenn saay fekk duñ dégg leen jàng waaw fa rubba muballighin aw amina saami léeg-léeg nga dégg benn texte nga ñëw di ko wax nit nga wax ba pare moom mi nga nettali mbir mi mu gën laa dégg li nga wax yow moom mu gën la ko dégg loolu day am ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax jàng nañ loolu ci xisasul ambiya bi passé àllarba diggante daawuda ak suleymaan ah wala eggaguñ ci ci loolu lañ toll xisasul ambiya àllar passé ci daawuda ak suleymaan la waaye xissa bi àllarba lañ koy yeggali ah kon na nekk ala ilmin kaafin billah na nekk koo xam ne xam na yàlla tabaraka wa taala ci kennal ko ah ci ay digéem waaye ci ay tëkkoom ak mu xam atte sharia islam kon incha allah ñaari aaya yooyu mbokk yi la ñuy jël tey muy aaya 54 aaya 55 ñu ñaan sunu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu mu dëgëral sunu làmmiñ ba du ñu tarxiis ñu bàyyi cheikh bi mu jàngal ñu aaya yi bi iznillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين صدق الله العظيم
wallahi barik fiik jazakallahu xayran sunu boroom subhaanahu wa taala mbokk yi dañul di orienté yurshidullaha tabaraka wa taala rasulahu di orienté yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ila tariqil musla ci yoon yu kawe yi yoon yu jekk yi yoon yi nga xam ne yoon yooyu la ñuy jaar pour woote jëme ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw ba ko yàlla sorilee tere ko yoonu gaa yi nga xam ne dañuy def boddi konte dañuy farak ñi dàq ñële ci suñu aaye passé sunu borom subhanahu wa taala di wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam wa iza jaaka alladina yuminuuna bi ayatina yow yonent foofi nekkati nga seen gaa yi nga xam ne yusaddiquuna bi nubuwatika gëm nañ ne yow yonent nga gëm nañ ne téere bi nga indi yàlla ci yàlla la bàyyeekoo gëm nañ ne diine ji nga indi mooy diiney dëgg fa haula rahib bihim ñii day nang leen yaatalal na nga leen teeru na nga leen teral wa qul salaamun alaykum na nga leen ñaanal jàmm allahu akbar wa iza jaaka bu dikkee ci yow allazina gaa yi nga xam ne yuminuuna gëm nañ bi ayatina sama aaya yi faqul yow yonent na nga leen na nga wax ak ñoom ne leen salaamun aleykum yal na jàmm nekk ci yéen yal na yàlla sotti yërmandeem ci seen kaw wa mahma kaanat zunubuhum seen bàkkaar yi lu ñuy bari bari bàkkaar yi nga xam ne yéen yéen a ko def na ngeen yëg ne yéen ñooñu def ay bàkkaar yàlla tabaraka wa taala ku bëri yërmande la mu ne daa bi salaama min kulli makruh ñaanal na leen yiw ci bépp musiba bu këpp seen kaw wala bu leen daal wa hiya tahiyatul muminin loolu mooy nuyoo jullit fi dunya wal axira nuyoo jullit mooy assalaamu aleykum aduna mooy assalaamu aleykum alaxira sunu yonente sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na bi yàlla bindee aadama daf ko ne xoolal mbooloo malaaka yële toog nga nuyu leen soo demee nga wax leen asalaamualeykum aadama ñoo fekk malaaka yi fa ñu ne mu ne leen asalaamualeykum malaaka yi ne ko wa aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu yonent bi nee na yàlla ne aadama lii mooy sa nuyoo yaag sa xeet lii mooy sa nuyoo yow aadama yaag sa xeet kon assalaamu du'aun bisalaama ñaan la gi ngay ñaanal nit jàmm waaw wute nag ak ñun sénégalais ni ñu nuyoo ay salaamaaleykum salaamaaleykum foog nga sidd siin bi assalaamu aleykum am na sunu benn imam bu ñu jiite woon ne mun na def ñuy bayaan quoi mu ne fa ngeen tooyal seen gi ngeen ne asalaam asalaam ma yëkkati sama loxo benn waaye ne ma ndeysaan ndeysaan dana njaale woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko wa iza jaaka bu dikkatee ci yow allazina gaañ nga xam ne ismu mawsul yuminuuna gëm nañ bi ayatina sunu aaya yi fa qul salaamun aleykum ñaanal leen jàmm bul gis mukk ku gëm yàlla ñëw ci yow ngay ñàngal sa kanam wala nga naan da nga koy xatal wala nga naan da nga koy puus lu tax parce que yére bi mu sol parce que yaramam ni mu mel parce que parce que melokaanam déedéet bu la wóoree ne waa ji ku gëm yàlla la gëm na aaya yàlla yi fa qul salaamun aleykum ñoom defkatu bàkkaar yi bu ñëwee ci yow ndeysaan léeg-léeg nga gis ku la woo téléphone ne la oustaz nga ne ah mu ne wuu def naa musiba de def naa nangam ak nangam bu ko ne pare nga déet wax ko kataba rabbukum ala nafsihi rahma ne ko yàlla ku bëri yërmande la kataba moom yàlla moo dogal aw jaba ar rahma moo waral ci boppam ala nafsihi ci boppam moom yàlla moo waral ci boppam lan ar rahma yërmande yërmande ci moom sax moo jiitu meram allahu akbar jaa ngeen xadisu buxaari xaaj yi nga xam ne musul def tiyaaba musul def lu baax toppoon adduna rek di noos def lu ko neex ba waa ji di faatu lan la wax doom yi ban bàyyi laa ci yéen ñu ne ko bàyyi ju baax mu ne su ma deewee lakk leen ma ngeen xaaj ma ñaari xaaj benn xaaj bi ngeen def ko ci paan ngeen yóbbu géej benn paan bi ngeen yégal ko ci montagne yi naawal ko mu naaw bu ngeen ko këppee rek ngelaw li dina ko tasaare mu naaw ñu ne papa lu tax mu ne damaa ragal dajeeg yàlla ñemewuma ko ndax mosuma koo jaamu xam naa ma dajeeg moom du baax waaw waa ji daal di faatu doom yi dajale ay mat daal di koy lakk ba mu nekk dóom ñu tibu dóom ji def ko ci ñaari paan ñii divisé wu deux ñii jaar ni yóbbu ko géej ga ñii jaar ni yóbbu ko ci montagne bi ñee yegg géej daal di koy këpp ci géej gi jaxase ko mu seey ñee dem ca montagne ba këpp ko mu nekk ngelaw naaw yàlla ne waa ji kun fa yakun mu taxaw ci kanamam yàlla ne waa ji li nga def lu ci dugal la moo tax ngay lakk sa bopp xanaa xamoo ne laa yuazibu binnaari illa saahibu naar safara kenn du ci mbugal nit même rabu àll yi kenn du leen lakk ak safara léeg-léeg nga gis ku yor ku yor sondel di lakk ay matt ah wala ay gunóor wala wala wala ah loolu kenn du ko def safara kenn du ci lakk mbindeefam yàlla yàlla moom moom safara moom dong moo am droit lakk mbindeefam ci safara amma mbindeef amul droit jël mbindeef moroomam di ko lakk ak safara illa saahibu naar borom safara rek yàlla bi mu laajee waa ji waa ji mu ne ko yow sama borom dama laa ragal moo tax ragal dajeeg yow loolu moo tax ma daan ne nañ ma def liñ ma def yàlla ne ko demal baal naa la baal naa la Fudayl nee na ibnu abbas nee na jaa qawmun min almuslimina ila annabi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala inna qad asabna min alzunubi fastaghfir lana ay nit ñoo ñëw ci yonent ne ko nun de dañoo def ay bàkkaar ba fees del del del del del ay yonent ñaanal yàlla yàlla jéggal ñu aaya bi daal di wàcc waaw li ngeen yëg ne yàlla ku bëri yërmande moom yàlla fa lisa laa yuazab illa baada al inzar yàlla du mbugal mukk lu dul dana wax ba pare ba pare wa yaqbalu tawbata min ibadi yàlla day nangu tuub ci jaamam yi wallahi alazim ay yàlla moo mën a baale ñaata aaya lan jàng sunu borom di wax ne laa taqnatu min rahmatillah inna allaha yaxfiru zunuba jamia allahu akbar ay waay gis nga aaya boobu su ko nit ñi déggoon rek seen diine day jag bakkaar yi li muy bari bari bari bari bari am na ñoo xam da nga leen di wax yow doo doo julli mu ne man lu may julli man mosuma julli nga ni ko yow doo war mu ne lan laa koy doyee man xam naa ne yàlla du ko déedéet laa taqnatu min rahmatillah bul découragé bul yàkkeeku ci yërmande yàlla lu tax mu ne inna allaha yaxfiru zunuba jamia allahu akbar jamia lan la bàyyi hmm? sànq maa ngi téléchargé ay yi nga xam ne dafay wax ci rahma yëpp ci yërmande yàlla lay wax ay yi waaye da nga yëg ne dëgg dëgg dëgg nit ñi ñoo bëggul yàlla baal leen waaye yàlla moom tabaraka wa taala wa rahmati wasiat kulla shay wa rahmati sama yërmande man yàlla mu ne wasiat yaatu na ba daj kulla shay kulla shay moom lan la boo demee ci géej gi fekk ko fa nga dem ci jéeri ji fekk ko fa nga dem asamaan fekk ko fa nga dem ci suuf fekk ko fa nga dem ci dex yi fekk ko fa foo nekk ci lépp da ngay gis yërmande yàlla ni ko yàlla yaatalee kullu shay kullu shay amul lu yàlla bàyyi ah da ngay gis muus nu mu yërëme doomam nga gis xaj ni mu yërëme doomam nga gis mbaam ni mu yërëme doomam nga gis nit ni mu yërëme doomam nga gis mbindeef yi ci kaw suuf ni ñuy yërëmantee loolu yëpp lan la yërmande yàlla tabaraka wa taala moo daj moo daj loolu moo ko yaatu ba daj ko sunu borom ne nabbi ibaadi anni ana alghafuru rahim waaye yow muhammad foo ne mu ne maa ngi ni mu ne ko xamalal sama jaam yi xamalal jaam yi nabbi ibaadi xamal leen allahu akbar ana man mi man yàlla anni man mi man man anni man ana man mi alghafuru rahim maay kiy jéggale maay kiy yërëmee mu ne qul liman ma fi samawati wal ard waaw yéen laajal gaa yi kan moom moom asamaan ak suuf mu ne dinañ tont qulillah waxal yàlla la mu ne kataba ala nafsihi rahma moom yàlla moo moo dogal ci boppam ne moom ndeysaan balaa muy mbugal day yërëm ba pare baadal inzaar ginnaaw ba mu waxee ba pare yàlla musul mbugal nit te waxul ak moom jàng a beneen aaya baa ngi nii wa iza jaaka allazina yuminuuna bi ayatina fa qul salaamun alaykum kataba rabbukum ala nafsihi rahma ndeysaan hadis yi ci tegu nag di wax ci yërmande kenn xamul nu mu toll kenn xamu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ànd ak sahaaba yi benn bis sahaaba yaa ngi nettali xam nga yonent bu daan ànd ak sahaaba yi di dem gars yi dañ koy wër ndeyjoor ak càmmoñ ñii ci kanam ñii ci gannaaw poussière bi commencé ndax yonent bi moo génn mbeddi Madina dafa xatoon am na xale yu doon fo benn jigéen bi mu séenee gàngoor gi ni ñu àndeek yoon wi ak nit ñi ni ñuy dawee bëgg a gis yonent bi te doomam a ngi ci yoon bi mun nañ koo écraser te duñ ko yëg ndaw si yuuxu daw song mbooloo mi yuuxu daw ñoo rek bërëngu ak doom ji yëkkati ko naan sama doom sama doom sama doom yonent bi ne sahaaba yi est-ce que ndaw si dina sànni doomam ci safara sahaaba yi ne kii gisoo lim def léegi-léegi xanaa mu ne kii yàlla moo ko gën a yërëm doomam ci beneen bi sahaaba yi dañu nekk ci benn àll daal di jàpp benn picc bu ndaw biñ ko yëkkatee picc mi rek yaay ji ñëw topp leen biñ ko yëkkatee dañ ko yëkkandoog tàgg bi yaay ji topp leen yaay ji jékki-jékki rek ne saraax ci biir tàgg bi yonent bi ne sahaaba yi xool leen picc mi alak na boppam ndax doom ji ndax bëgg bi mu bëgg doom ji moo tax tey mu alak boppam ci seen loxo pour ngeen jàpp ko jàppaale doom ji parce que bëggul ngeen yóbbaale doom ji moom bàyyi ko fi beneen bi maa ko seetaan ci internet bi benn muus buy ñëw di jàpp benn picc ci benn kër gu mu ko nenoon ci terrasse la xaw ma fan la film bi bi mu muus mi jëlee destination jëm ci tàgg bi fi mu nekk picc bi picc bu mag la mu ñëw di xeex ak muus bi di xeex ak muus bi pour muus bi dëpp bañ a jubal ci yoon bi fi doom ji nekk waaye muus mi jubal rek xam naa muus mi daf ko yëg daf ko sentir ne fi am na lu fi nekk gis nga li doy waar mooy bi mu ñëwee benn ñaar ñett ñeenteelu yoon bi rek muus bi ne karab yaay ji ndeysaan wala yaay ji sacrifié boppam ndax doom ji rëcc muus bi noonu la yóbbee yaay ji lekk ko xoolal yaay jooju yërëm doomam ba sacrifié boppam sunu borom moo nu gën a raw yërmande loolu lépp moo tax mu ne yërmande sama yërmande moo gën a moo jiitu sama mer ci xadis yi du jeex ay nag moom kenn mënu la ko wax yooyu yëpp lan la ñuy jàngal mooy yërmande yàlla tabaraka wa taala ni mu yaatoo léegi nag nit ñi ci réer gu ñu réer ak ñàkk a jàng ak pottaxlu gu ñu bëgg a pottaxlu ne yàlla ku bëri yërmande la du defe dara ba nga toog di accaaral sunu borom nee na kataba moom yàlla moo dogal rabbukum seen boroom ala nafsi yi ci boppam ar rahmata yërmande mu ne annahu li wër tey mbir man képp koo xam ne ci yéen amila jëf na minkum ci yéen suu an lu ñaaw bàkkaar zam asaa bihi ila nafsi def nga bàkkaar boo xam ne da nga kaa tilimal sa bopp ah waaye ba nga koy def bi jahala ba nga koy def fekk da ngaa réer gis ngeen xam nga fii Sénégal da ngay gis tey la àjjuma mu sangu ba set booy foo jëm damay fecc damay xoosi ah loolu la ñu wax mu dem fanaanee fecc fanaanee naan sàngara fanaanee njaaloo ba samedi mu ñëw bu yeewoo mu ne astaghfirullah samedi vendredi mu branché wu waat départ ci samedi mu ne astaghfirullah vendredi jotaan mu dem waat bàkkaar xam ngeen kan la la ko yàlla di baal koo xam ne da nga koo def bi jahala da nga koy def xamoo woon ni lii bàkkaar la waaye ku tey xam ne lii bàkkaar la def ko ba pare naan yàlla xamoon naa bàkkaar la de waaye xam naa def naa ko pare nag baal ma kenn du la baal bi jahala ah man amila minkum su'an bi jahala bi nga koy def xamoo woon ne lii bàkkaar la waaw al jahlu anwa réer googu ñuy wax nag ay façon façon yu bëree bari la al jahlu réer borom xam-xam yi nee na anwaun minha adamu taqdir aqibatu zamb bokk na ci yow mi def bàkkaar bi xamoo bàkkaar bi résultat bi fu muy mujjeeg yow beneen bi wa nisyaanu azamu azamatu rabb kii def bàkkaar bi dafa fàtte màggaayu yàlla su xalaatoon yàgg yàlla nu màggee mbokk yi ñun ñu toog fii tey ci biir jàkka ji kan ci ñun mooy def lu bon fekk ñun ñu ngi taxaw di la xool ah ñun ñu nekk fii laa wax kan ci ñun lañ nit ñi jàkkaarloog yow ngay def bàkkaar la moo tax nit ñi buñ lay xool doo def bàkkaar ah dégg naa benn waay bu takkoon jabar mu am séet mu yóbbu séet bi séet bi sëy gudd jot mu war a fanaan ak moom mu ne tëll ci néeg bi rek gis ñu wékk photo sëñ bi ci kaw mu ne ah wàcce leen photo bi wàcce leen ko waaye ñu ne ñu xew mu ne bëgguma may sëy sëñ bi di ma xool ah allahu akbar xool kooku nu mu respecté photo bi est-ce que kenn ci ñun respecté na noonu yàlla bi ngay def bàkkaar yàlla gis na la wala gisu la ah kenn ci ñun bi muy mooy yàlla yàlla gis na ko wala gis ko ah lu tax léegi màggaloo yàlla boo yëgoon ne yàlla mi ngi lay gis est-ce que di nga ko mooy doo koy moo tax képp koo gis mu def bàkkaar rek dafa tuutil màggaayu yàlla ci kanamam fàtte na fàtte na màggaayu yàlla fàtte na ko fàtte na màggaayu borom bi tabaraka wa taala bokk tax mbokk yi sunu borom ki muy baal mooy ki def bàkkaar bi jahaala waaye bi mu ko defee bañ ne ko lii bàkkaar la summa taaba min baadihi après mu tuub nag bi mu tuubee lan la def wa aslaha mu yéwénal soo tuubee da ngay rafetal Sénégal da ngay gis ku tuub ay at ñuy nettali lu mel noonu wala ñuy wax lu mel noonu wala moom mu toog di ko wax naan "Hmm, cey bi ma ci tollee cey bi ma ci tollee ah, booy maa munoon fekk fecc pàccanga maa munoon def nangam waaye gis nga jamono yooyu laajal sa yaay laaj leen seen yaay yaa gis paa bu ne laaj leen seen yaay nga la yaay ñu ne ah laaj leen seen baay xam na kii waaw loolu lu tax ngeen koy nettali xale yi bàkkaar xanaa xamu ko def wartu ko nettali yonent bi nee na hadis bi ñu ngi koy jam man faala zanban yadhak daxala naar wa huwa yabki ku def bàkkaar di ree bis dina ñëw nga dugg safara di jooy kon noo defee bàkkaar di ko nettali ba pare tuub nga borom xam-xam yi dañuy wax ne tuub soo tuubee ba suratu tawba laxdari sax mi ngi koy jàngale an nadamu ala ma faat mooy rëccul li passé wanniya an laa yauda ila dambin fi ma baqiya min umri na nga yéene li des sa dund dootoo defati bàkkaar bi waan yatrukal maasiya fi saatiha loolu mooy sax téere fiq yi amma yeneen dañ ci yokk soo tuubee fekkoon ne da ngaa jël bagage yi jàmbur da nga koy delloo ku sàccoon oto masalan tuub dawal oto bi fukki at daa tuub fekk oto baa ngi ci loxo yi na fexe mu delloo oto ba jàmbur bu fekkoon ne alal la fexeel nga delloo ko bu fekkoon ne bàkkaar bi da nga cee soloon ay yére yoo xam ne yaa ko jënde woon def ko ci yére yi bul ko ci solati man mel na tey nga sol yére yi araam comme tube yi xale yu góor yi di sol instant yi ay pain wak ay kiris karas ak yére góor jigéen yooyu nga xam ne léegi boo ko solee xoola yére yi ñu génne nga xam ne boo bëggee jàpp doo mën def nii gis ngeen yére yi ñu génne de téer yi léegi moom lay ñëw boo bëggee jàpp munoo wax sa loxo yi ba ci sa conc yi moom foog nga simmi yére bi te nag léegi bu fekkee amoo loo jiital nag yére bi doo ko simmi da nga naan doo mën a jàpp nooy def ah xaaral ba ma ñibbi rek ma daajal la julli yi julli naka la jullit di solo yére boo xam ne buy jàpp du ko mën a wag naka loolu moo xew léegi tubéy yoo xam ne sa waay comme élastique sànq maa ngi liir benn borom xam-xam ndeysaan mu ne su fekkee daf yaramu neen daf yaramu neen avancement la mu ne eskay lil xaywaanaat fa inna lahum taqadduman waaw wax na dëgg fekkee daf yaramu neen euh, kii la quoi euh, civilisation la ah avancement la daf yaramu neen tey ji boo waxee jigéen ñi daf yaramu neen soo demee ci télé yi ñi daf yaramu neen boo leen ne lii nag ñu ne lii c'est la mode hein c'est la nangam c'est la c'est la c'est la kon kon kay rabu àll yi c'est la waaw waaw fu jigéen bu def yaramu neen di tiitaroo xar war faa daagu ne ko gënoo maa def yaramu neen ndeysaan olof yi nee nañ def yaramu neen di wër te foo yegg si ñu ne eskay ak rafet mu ne fas la jikk ah déggu leen ma de def yaram mu neen foo yegg si ñu ne ak rafet kuy la jikk kuy kuy kuy ngay sang ba mu set mu weex tal ah nga fuddan ko mu bleu nga jàpp ci buum bi di dox mu ne sa ginnaaw foo romb ñu ne est-ce que ak rafet est-ce que sol na yére fas ngay jël sang ko ba mu set fuddan geen geeg tànk yi foo yegg si ñu ne sa fas bi rafet na ah est-ce que sol na yére ah ah moo tax nit bu toppandoo yaramu neen nit rabu àll juum na te tey nit bala muy rafet Sénégal def yaramu neen wala tey sénégalaise balaa muy rafet ci ñun ñii toog fii kañ lay rafet su defee yaramu neen génne yaramam yëpp ci biti gaa yi ne ko toj nga fii booy gaañ nga mbedd mi day gis bandi yi salte yi ñooñu yàlla naan fii xulubihim marad borom xol yu nëb yi waaw allahu akbar yal nañu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yal nañu yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko sunu borom nee na annahu li wër tey mbir man képp koo xam ne amila jëf na minkum ci yéen suu an ñaawteef bi jahaala te ba mu koy def dafa réeroon xamul woon ne li bàkkaar la summa taaba mu tuub min baadihi ca ginnaaw loolu wa aslaha mu yewenal la mu yàqoon mu defaraat ko na yëg ne fa annahu moom yàlla gafuurun jéggalaakoon rahimun yërëmaakoon la wa kadalika naka nii man yàlla nu fassilu laay leerale al aaya al ayaat aaya yi laa koy faram-fàccee leeralal leen ko ba mu leer nañ ba kenn ku nekk yéen mu xam fu muy teg tànkam amul benn aaya bu yàlla leeralal ci ñun suñu dund pour ñu xam wa kazalika nufassilul ayat man yàlla nii laay faram-fàccee aaya yi ba mu leer nañ ci yéen lu tax wali tastabiina sabilul mujrimin tattadixu wa tazhar ba mu feeñ leer naññ ci yéen wali tastabin ba mu leer nañ man yàlla ci leeral gi may leeral aaya yi ci lay leere sabilul mujrimin yoonu bandi yi ndax buñ la leeralee islam bi ba mu leer rek ñu leeral la yoonu yonent bi ba mu leer di nga xam ne yeneen yoon yëpp ay yooni bandi la wali tastabina sabilul mujrimin gis nga saa yu ñu leeralee yow alquran ak sunna di nga xam lu alquran ak sunna banditisme la réer la waaw caaxaan la fola alquran ak sunna dong mooy dëgg mooy diine ndax loolu moom la yàlla tànnee yonent bi yónni ko ci ñun yonent bi loolu la ñu indil yonent bi indilu ñu ay fecc indilu ñu ay way indilu ñu kàpparñi indilu ñu yaramu neen indilu ñu indilu ñu indilu ñu lan la ñu ñu indil lan la ñu yonent bi indil njub moo tax yàlla ne wa in tuti uhu tahtadu su ngeen ko toppee jub xool leen fan yi vidéo bi daw youtube ñu ne yonent bi du modèle do am ngeen ko ah seetaan ngeen ko ab xale bu ndaw xam ne benn baatu arab sax fanaanul ci boppam ne day conférence lan mooy temam yonent bi du modèle dama ko yàgg a kaas tey nag leeral jot na ma leeral lool loolu la wax de loolu dama ko yàgg a kaas tey nag le comme ni ma koy kaasee rek tey nag leeral jot na il faut ma leeral lan laay leeral yonent bi du modèle ay waay waay Sénégal waaw waaw loolu la Oustaz Aboubacar Diankhe di wax de ne Sénégal carrefouru kéemtaan la Sénégal moom léegi-léegi la ma benn mbokk bu tudd Saalix Sow mooy woon benn vidéo benn waaye naan bi sëñ bi bindee yàlla bi sëñ bi defaree yàlla na ko bul sagu nag bul sagu naan yàlla bul sagu sëñ bee la defar ma ne ko Salif dimbali ma rek man li nekk sama bopp bi doy na sëg ndeke yàlla dañ koo defar en Sénégal ndeke dafa am sëriñ bu nekk Sénégal moo defar yàlla yal nañu yàlla woon dëgg la ilaha illallah waay waay wa kazalika nufassilu l ayat wa litastabina sabilu lmujrimin nii laa lay leerale aaya yi yow sayduna muhammad ci aaya yi ni ma la koy leerale ci ngay dem ba comprendre nga gis yeneen yoon yi nga xam ne ay kàccoor lañ ay saay-saay lañ benn du ci yoonu yoonu dëgg sabil mooy lan mooy yoon al mujrimin mooy ñan mooy kàccoor yi ñi nga xam ne ay defkatu bàkkaar lañ ah woo nit ñi ci ay caaxaan te tey li doy waar ndeysaan mooy ku woote rek am ay taalibe kenn dong mooy woote du am ko ko topp mooy ku ne ñëw leen ci yàlla ak yonent kooku de kenn benn waayam nga yónnee sànq message ci sama whatsapp mu ne ma état religion bu may nuyu de mu ne ma sa diine nag état religion noo def ak sa diine bi ngay woote ma ne ko waa jërëjëf boo buggee dund diine day mel dañ lay jox diine bi ñu ne yow yaa ko moom yow jë jë mbokk yi li mooy darsu tey ñoo ngi jéggalu njuum tey asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñii dem Grand Yoff darsu am na tey dégg ngeen ah incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah bismillah